te moom ci ci sama doom yi la bokk ñu fier lool ci moom nag wax dëgg yàlla kontaan lool ci liggéey bi muy def ak ak fi ko sénégalais yi teg fi ko jeunesse bi teg et tout ça xam nañu lépp euh, di ko ñaanal mu continuer liggéeyam bi ak sagoom di ko wax ne ko aussi mu mu xool bu baax bu baax a baax a baax a baax a baax fi muy teg tànkam ak ñi muy ñi muy nekkal ñi muy àndal parce que euh, tubaab def ni dis-moi avec qui tu t'accompagnes je te dire qui tu parce que gis nga entourage mën na yàq lu bari parce que li ma koy wax moom Wally Seck mooy entourage am mooy dooleem bien sûr ñu koy entouré mais ñan ñoo koy entouré aussi parce que dama set ne temps yi ñu ngi wax ci benn benn wax boo xam ne daf ma daf ma metti ndeysaan bi ma déggee affaire affaire stade boobule waaw te man maa nga fa woon fala fala toog man maa ngi toogoon ak ñoom ñoom njaganduur ak ñoomin euh, baxaaw dabren c'est tout ça ñu ngi toog nii te njaga dama ñëw mu wan ma conducteur ne ma conducteur bi ñun jusqu'à telle heure ñun ñoo yor conducteur bi mais après heure beneen heure bi dafa am yeneen yeneen nasaraan xaw ay voilà yeneen nit daal yu yore wala wa wala waa Turquie yooyu ñoom ñoo yor peut-être euh, ñoom ñoo yor peut-être sax ñoom ñoo yoroon euh, boobu quoi exactement donc bi njëga arrêté à 17 heures man maa ngi maa ngi toog ak njëga di waxtaan ñuy foo di ree di wax yeneen yi wax mais bi ma déggee après toole bi ci am et tout dafa doy waar loolu loolu daf rafetul parce que xam nga euh, bala ngay toj gémmiñu sàmba da ngay xam li muy wóolis parce que foofu lan moo fa nekkoon dara lu dul sargal rek sargal li nga xam ne moom la président Macky Sall def invité ay ay ay maanaam ay ay nawlem nawle président yu yu am solo yu yu yu yu fa nekkoon lanu waroon def mooy la nga xam ne moom la Wally Seck waroon def tekk ak tey ni kuy teg tegle même bu woyul même dama la ni même bu woyul woon amul solo voilà waaw voilà war na tàllal loxoom parce que nit ñi nag bëgg nañ ko xale yi bëgg nañ ko trop sax gëm nañ ko waaye nga ñëw yéeg ci scène bi même buñ tegul sa son nga yéeg tàllal sa loxo def nii xam nga loolu dina rafet aussi président Macky Sall ne ne nawleem yëpp président yooyu euh, ñi mu toogaloon foofu ak ña fa nekkoon ñëpp ñu nekkat waal yi woyul waaye ñëw na rek assister parce que ñun mag ñëpp muy man ah muy Ismaïla Lo muy Baba Maal muy Youssou Ndour muy Mbaye Dieye Faye muy euh, ñoomin Viviane muy ña fa nekkoon ñëpp xam nga lan moo ñu fa andi woon pour célébrer rek célébrer wan président Macky Sall ne li mu def rafet na lool ñu ngi ko ñu ngi ko euh, sargal daal di di di bëggee loolu loolu moo ñu fa andi du affaire du du dara mais ñun ñun pour ñu gis ñu dama lay wax benn phrase bu important nga denc ko gis nga euh, wax ji day day day bari rek nii rek mais Sénégal war nañu wàññi wax ji nekk ci action bi beaucoup plus parce que am na ñoo xam ni bu ñu fayee télévision yi ñu fay internet yi kenn du leen xam bu ñu fayee internet yi laa wax déglu baax fi may waxee ah bu ñu am na ñoo xam ne bu ñu fayee télévision yi fay internet yi kenn du leen xam am na ñoo xam ni mën nañu fay télévision yëpp fay internet yëpp ñoom dañuy continuer di jouer c'est le cas de Baba Maal c'est le cas de Youssou Ndour c'est le cas de Ismaël Lo mooy suñu cas ñun ñun li ñuy tabax waaw muy ñoom Omar Penn ak ñoom ñun ñëpp xam nga eh, ñun ñoom ñun bu ñu bu ñu fayoon télévision yi tey ñun festival yu mag yi boucler nañ ko pour deux mille vingt trois ñu ngi koy commencé boucler nii di dem di tëggi di c'est bon mais dafa am affaire boo xam ne aussi ci réseaux sociaux yi war nañ ci def attention war nañ ci def très très attention parce que ba waaw dafa am benn waay moo wax ni ma Euh, gis nga am na sénégalais yu nga xam ne en fait mu maîtriser wuñu les réseaux sociaux là maîtriser wuñu internet ba nga xam ni dañ ciy wax lan mooy nga téye sa téléphone rek wax nii rek saaga nit wala nga wax nit loolu mooy lan loolu ñun ñun dañu ko dañu def du sax suñu suñu démarche Sénégal fii maam yi dañuy wodd wax maam yi ñun dañu yar ci wodd wax di ni ngay xoole nit ki nga wodd ko ni ngay waxee nit ki nga wodd ko waaw loolu suñu culture man ñun Sénégal yëpp mooy mooy loolu mais bu ñu demee ba nga xam ni internet dafa et puis ma suma xarit boobu moom il est gabonais xam nga il travaille à ne ma Sénégalais yi mënuñu y en a y a certains Sénégalais ils ne ils pas gérer les réseau sociaux ils ne savent pas gérer internet loolu ma xoolaat affaire bi ma ko mais kii li may wax ni pourtant kii na mais dëgg la parce que boo mënee gérer gérer la cette plateforme la ci ñu ngi koy wooyee les réseaux sociaux la mais xoolal xale yi tey ni ñu mel am na certains xale yu nga xam ni da nga leen di gis mais suma man suma am na suma famille yoo xam ne ci la ñu bokk xam nga ci loolu may wax ni ci la ñu bokk te tout le temps dama leen di conseiller ne leen mooy moytu leen les réseaux sociaux là parce que sinon rek dana leen mos a tànc benn tànc bu nga xam ne pour ngeen génn fa da jafe donc moi ce que je veux dire à Wally Balago Seck mooy teg ak tey ni rek kuy tegle parce que moo la benn affaire gis nga sëñ Touba Cheikhul Khadim keroog bëgg tubaab ya non non ngir li mu fonk réew ak diine ba tax fu mu sekkib jóg a teg ñépp topp li ko ku tekk ngir tegle xamul tax yàlla jox ko moom la yàlla jox lu mu joxul kenn moom la yàlla may lu mu mayul kenn parce que dafa jaamu yàlla tarbiyu ba am li mu am donc nanuy tarbiyu nanuy am exemple ci ñu mel ni sëñ Touba maam El malit xam nga barki démb fii ak appel bi maam Limaamu Laay ah ah tey ba ñaseen fële nga dem Maulana xam nga ah ak ak ak ñeneen ak ñeneen on a tellement dañoo am ay érudits yu nga xam ne war nañ ci bàyyi xel te ñooñu heureusement ñu nekk fii ci senegal gi pour pour bu lu ñu lu lu lu xale yi jéem a euh, kii ak yooyu yàq ak yooyu ñoom fa ñu ne ak fa ñu tëdd tey ñoom ñooy defar réew mi dañ koy defaraat rek ay réparer dañuy réparer rek dañuy réparer rek donc man li ma li ma wax euh, euh, Wally Ballago Seck mooy loolu dara wala dara amu foon lenn rek la mooy voilà affaire et gis nga lii tax nga réussir mooy ñi la entouré ñooy ñooy sa gis nga ñun on joue avec les plus grands musiciens de cette planète là adduna bi yëpp dañuy déglu dañuy dégg man fii laay toog suma studio di bindal ay Ghanéens ak ay Nigériens ay wayaki yu kenn xamul dama koy de tout le temps maa ngi composé tout le temps di leen envoyé Euh, ci ci ay dëkk yu bari aux États-Unis xam nga en France ak yooyu mais pourquoi mënuñu mënuñu euh, dal xam ne euh, coon daf ma naan wax loolu ndeysaan naan ma waaw mais kii lu moo lu moo daw bay daanu ne kii kii kii lu moo daw bay daanu amul yàkkamti yëf yi boo defee ndànk tekk ak tey ni la kuy tegle lépp waa tekk dalay lay wan yoon lépp looy soxla subhaana taala daf la koy indil jox la ko waaw loolu daal li may conseiller xale yi aussi ci musique bi mooy ñu xoolaat seen taxawaay bu baax a baax a baax. Hmm. du loolu daal ko jaru ko mm-hmm. mm-hmm. xeex beeg ubbi label yeeg ubbi kii yeeg jaru ko liggéeyal sa liggéey ah boo liggéeyee sa liggéey billahi wallahi tallahi sa liggéey moo lay fekk fa nga toog mu fayal la boppam sa liggéey moo lay fay sa liggéey moo lay fayal boppam mais bu ñu nekkee ci yenn yenn wax yi xam nga kilifa yi fi nekk nga xam ni ñoom ndeysaan ñoo ñoo ŋànk musique bi quoi qu'on puisse dire muy une personne que j'apprécie énormément que j'aime énormément xam na ko muy Youssou Ndour dañu dugg keroog présidence le lendemain an euh, kii bi inauguration stade bi président Macky Sall invité ñu ñun ñëpp maa nga foon man Fally Ipupa waaw ak euh, ak euh, Alpha Blondy maa nga foon ak le de Magic System Asalfo maa nga foon ak Youssou Ndour ak man Baba Maal ak ak nu mu tuddati Omar Pène maam frère ak euh, Ismaël Lo ak Wasis Diop ak euh, acteur culturel yu bari ak ñoom Aziz Dia ñu nga foon ak euh, ak beaucoup de gens ah Amidou Kassé qui s'occupe de la culture à la présidence ak d'autres gens il y avait énormément du monde le président Macky Sall nous invite à un petit déjeuner mais gis nga bi ma xoolee xoolee affaire ma xool atmosphère bi xool li ñëpp wax ñëpp lu rafet la ñu wax mais Alpha Blondy def ni ko monsieur le président vous êtes très grand parce que li mu biir présidence Alpha Blondy ne ko président vous êtes grand parce que li nga def lii la ñu soxla ku mel ni yow la ñu soxla comme leadership au niveau de l'Afrique fekk président Macky Sall ñu ñu fal ko en plus Euh, mu nekk euh, président de de la de de l'Union africaine xam nga ñu fal ko ko mu ñëw moom nga xam Alpha ni ma ko xamee c'est Alpha Blondy c'est un ami de de quarante cinq ans suma xarit la même boo ko gisee mu wax loolu ma ni euh, connaissant alfa e connaissant tous les autres du ñu wax comme ça en l'air il ne parle pas pour parler alpha bu amee lu muy wax daf koy wax muy dëgg ci moom yàgg na ci moom loolu mais mu waxee loolu laa xool ne attention donc on a on a à à à, féliciter ah et à remercier le président Macky Sall parce que loolu lañ ko ameel parce que fii ku fi def loo xam ni dafa rafet mais dañ la koy waxal et am un truc que ma que m'a dit Alpha Blondy hors daf ni ma seen président bi am na boo ko xoolee quand tu am na benn baraka bu nekk ci moom waaw barke rek Alpha Blondy rek ma xoolaat Alpha Blondy ma xoolaat ko nii ah man moom rek ma xoolaat ko ne ko ah mais ma ne ko merci waay pour cette euh, xam nga ma ne ko jërëjëf pour loolu parce que baraka mooy nga ñëw Euh, def fi lim fi def ak ni mu ko defee et mu tombé ci moom voilà ñuy xaar coupe d'Afrique ak yenn détails yi ay ay ay téere kii yu kenn xamul stade bi ay yooyu ñuy xaar moom mu ngi defar rek ndekete ndekete ñun ñu ngi toog suñu kër xam moom moom ma ngay tabax rek xam nga loolu voilà ga gars yi dañuy wax mais moom bi ngi liggéey rek te j'ai beaucoup aimé mm-hmm. l'attitude aussi de de Wally Seck mm-hmm. ni mu waxee président keroog mm-hmm. ma gis ko dans ci journal télévisé bi mu ne ko merci monsieur le président pour tout ce que vous faites pour le Sénégal donc man dama ni gis nga ñun chance boobu ñu am il faut ñu koy encenser pour jox nit ki nit ki boo bëggee mu mu comme ni ko xale yi di waxee mu yokk cere dolli ñeex il faut nga koy nga koy ñaax di ko jox di ko jox courage di ko di ko may xam nga mais bu fekkee ni li ñuy wax la critique est aisée mais l'action est très difficile nit ki mun ngay mun ngay critiquer ah di critiquer tout le temps wax nit ki ne ko waaye kii daal ay yooyu deful dara mais kan moo def dara mais au moins apprécie euh, waaw apprécie le beau te ñun il faut ñu xam ne ñun en tout cas les artistes nous les musiciens lay wax sax on est des vendeurs de rêves ay marchands de bonheur la ñu foog ñuy wax nit ki bu defee lu rafet ñu ko koy wax ne ko jàkk ne ko waa président de li nga def nii rafet na wax dëgg yàlla et tout mu yokk mu yokk loo day yokk ngóora day yokku yokk jomom yokk fulam lan lay def c'est pour le Sénégal et c'est pour le Sénégalais defu ko pour lan la la ko fa def ko pour moom defu pour doomam senegal la ko defal et bi ñu toogee bi ñu toogee ma xool Youssou Ndour mu toog ak mu indi ñëpp parce que ñoo ñooñu ma la cité ñëpp moom moo leen indi te il était toog nañu bureau am avant-hier rek ma wax ko ko wax naa ko Youssou Ndour ma ne ko tu n'étais pas obligé mais mu ne ma si parce que dañuy changer les données fi mu nekk nii on change les données parce que the time for Africa waxtu Afrique dafa jot te saxaar gi yuuxu na mais bul ba bu ñu bàyyi ba saxaar gi bàyyi ñu fii ci ci gaar bi nañu jël train bi le train en marche là nañ ci dugg bala ñuy train bi bàyyi foofu ci gaar boobu donc ma xool Youssou Ndour xool ni mu amee cette élégance d'esprit la xam nga woo ñëpp bokk ak ñëpp xam nga séddoog ñëpp dajale ñëpp kooku ma ni ko nag xam nga esprit fédérateur bi ma soxla woon wax dëgg yàlla ci moom mi ko mi ngi ko feeñal moom la ma jox donc bravo à lui aussi à qui on a confié cette cette grande organisation mu mu doxal ko doxal bu rafet kooku nag comme ni ma ko waxee quand quand c'est ñun ñoo ko war a wax ku fi def lu rafet ñu wax la ko donc li may conseil xale yi rek mooy euh, mooy loolu aussi ñuy rafetal waaw nañuy ñuy gën nañuy gën rafetal parce que booy am na ci xale yu bari yu am énormément de talent wax dëgg yàlla xale yu bari am nañu talent bu doy waar sax mais talent talent dañ koy arrosé da ngay jël sa arrosoir nii di ko arrosé di ko arrosé tout le temps pour mu meññ mais garab goo xam ni ñu ngi ñu ngi ko woowee garabu talent te doo ko arrosé mukk mais kooku naka la naka la naka lay meññee donc nañu arrosé li may wax jeunesse sénégalaise yëpp di ko wax artistes yëpp di ko wax xale artistes yii mag ñëpp laa ko wax sax di leen talent dañ koy arrosé waa parce que la ñu waxoon rek bu njëkk ba euh, tant qu'il y un homme pour chanter il nous sera permis d'espérer un jour avoir la paix dans ce pays-là Sénégal tey lan ngay tàggoo xanaa amatu lu <laughs> euh, di leen déglu Papa Idrissa Diop vraiment bu comme loo xam ne mm-hmm. tàggoo. ak jàmm ak salaam di ñaanal Sénégal jàmm yàgg fee sax comme ni fi guy yi garab yooyu garab googu ñuy wooyee guy yi yàlla na fi na fi. jàmm yàgg saxe comme ni fi guy yi yàgg saxe euh, di ñaanal sénégalais yi jàmm ak salaam euh, di ñaanal euh, suñu réew mi yal na fi naataange am commencé nañ commencé nañ ko gis waaye yàlla nañ ko gën a gis ñuy ñuy ñaan yàlla subhaana taala mu musal ñu ci cat làmmiñ ak musiba ak balaa ba ñi nga xam ne ñoo yore réew mi tey ñu liggéey ko ci anam yu rafet au service de sénégalais et des sénégalaises man loolu rek lay ñaan ñaanuma leneen na Sénégal saawaan baawaan ba nga xam ne xale yi tey danañ ci gis seen bopp parce que li may wax rek bu ñu nangu kenn sacrifier suñu doom yi nii suñu xale yi bu ñu nangu kenn di leen jox ay somnifère rek ñuy naan rek di nelaw non non non non man suma message foofu laa koy teg nañu bàyyi somnifère bi ñuy jox xale yi la jeunesse sénégalaise là ils ont pas besoin de ça c'est une jeunesse consciente boo xam ni dafa bëgg a ki ëllëg nañu bàyyi di leen wax ñuy génn di taal fii di def yu kenn xamul wala di saagaak yooyu kooku du wareefu une jeunesse xam nga qui est a a à prendre ce pays là en main bu fekkee ni ëllëg da nga war a yore réew mi da nga koy yor ci tekk ak tey niro kuy tegle voilà mon dernier moment jërëjëf jërëjëf